wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi xayri ma nabaat mbokk yi jërë ngeen jëf yéen yi nga xam ne yéen a baaxoo di ànd ak ñun ci opération defar yooni tubaay xam ngeen ne bëri na point yoo xam ne nii tàmbali nañ ko lu ci mel ne saxew gi gis ngeen nii nga xam ne nii noonu la dindee mbalit mi fi nekkoon ak ban bi gis ngeen tey jaayante yi nga xam ne nii chauffeur camion benn yi def nañ ko fii ñu taxaw nii fi ñu la daan wooyee it déggu saxaw gi lu toll ci 576 camions 16 mètres cubes waaw 576 camions dóor nañ ko fii ci saxaw gi mbokk yi juróomi téeméeri camion suuf ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn def nañ ko fii incha allah lépp rek ngir bëgg yoon wi talli ñaret ba yegg ca taliba te niveau te lay doon it ndax lépp ci xam-xam lañ ko teg moo tax gis ngeen camions yi ni nga xam ne noonu la ñuy dikkee gis ngeen ni nga xam ne noonu la ñuy paagee suuf si fii waaye yoon wi yëpp nii rek lay demee nga xam ne. lépp lu ñëw nee nañ après dina ci mën a tegu liggéey la boo xam ne nii day sax te dina dëgër incha allah gis ngeen kër ñang noonu la ñu ko def gis ngeen kër sax ñaan Diop tàmbali nañu sax beneen xeetu xeer wu ñuul yi nga xam ne nii moom lañ ciy sotti ndax fii dafa amoon benn euh, guy gu fi nekkoon ñu déjjati ko kon xam ngeen ne dina def kàmb goo xam ne day laaj remblé waat bu baax a baax a baax liggéey bi daay mbokk yi mu ngi dox mu ngi dox ndax jokkoon nañ ak ingénieurs yi nee nañ amuñu benn problème lépp lu ñu soxla ci wàllu matériel mu ngi ñëw lépp lu ñu soxla ci wàllu jumtukaay mu ngi ñëw waaye tey nag gis ngeen suuf si ni nga xam ne noonu la ñëwee ñëw na ba weesu lu kawe njort 576 euh, camion mètre cube xam ngeen ne loolu Serigne Touba rek am lu mel noonu kon nag lii lañ leen bëgg a tey ci saxaw gi wanaale yéen yi nga xam ne nii ngir dalal xelu ñi nga xam ne seeni jaayante dugg na ci liggéey bu am solo bi di defar mbeddi Touba yi defar mbeddi Touba yi nag yaakaar naa ne kenn ku nekk sa yéene tey boo ko mënoon yaa koy defal sa bopp ndokk bi nga xam ne taalibe yëpp ñoo ànd maasendoo ki yore ñaari téeméer ki yore million ki yore fukki million ba ki nga xam ne moo ci joxe ñaari téeméeri million waaye it di ko ànd aussi ak état du Sénégal ndax ONAS ak AGEROUTE ñu ngi ànd ak ñoom ci liggéey bi en parfaite collaboration ak commune bi nga xam ne noo def dara ci dëkk bi nag te jaaree ci conseil municipal bi kon ñu bàyyi leen rek ngeen xool liggéey bi fi mu toll ngir nag ñu gën a jaajuwaat liggéey bi nag comme ni ñu koy waxee rek yitte rek la dina yàgg dina métti dina tar waaye dina sotti ci kàttanu yàlla wajalilaayi maskanitu baabaat misras mi abijaayi xayri manabaat wajalilaayi maskanitu baabaat misras mi abijaayi xayri manabaat wasalliyan alayhi abdal salaat waali wasaabi sawi silaat wa kullu man qaddamani aw saara fa najjini waxfid lahu aw saara wa kullu man aabani aw maara illaa yafasu xudan aw maara wa kullu man sattamani aw laama fa ablahu tawbata wa istislaama وكل من أساس النوبيا فليقل قلبه يا ربي يا ولتكفني عسى جميع العالمين ولتقضي عسى يا رب العالمين وجل بنائي بنا أوافيا يجرني إلى خيور سافيا waajal bi naa eh bi naa ñu ngi sant sëriñ bi bu baax a baax a baax a baax ci ndigal lii nu jox ndax ab taalibe ku ko joxum ndigal rek da nga koo bëgg dimbali. kon nag ñi ngi sant sëriñ bi bu baax a baax a baax di dolli ci liñ ko santoon xam ne buñ mënee lii sëriñ Tuubaa rek a tax a ñun nag taxawaay bi transporteur yi taxaw ak chauffeur si bettuñu woon ndax yàgg na noo taxawee lu mel nii ci liggéeyal sëriñ Tuubaa kon xamoon na ne bu ndigal li jógee jëm ci ñoom niñ ko bëggee des na ko amee euh, ba tax na transporteur yi wax dëgg yàlla ñu am pas-pas lan ci liggéeyal sëriñ bi transporteur yëpp na leen danoo bëgg oto yëpp dem jaayante ji ak sëñ Touba nu liggéeyal ko ci appel ba waxoon naa ko ne bëggum nu des gannaaw ci Touba ca kanam danoo bëgg ñu nekk ci Touba ca kanam ñun transporteur yëpp nu nekk ca kanam ba wax dëgg yàlla noonu nu ko xalaate woon ba waxoon ne ne bëgg noo des gannaaw wax dëgg yàlla ku ñëw fii tey xool oto yi ni ñuy jaabantee di dem ak dikk nga xam ne jox defal nañ ci seen pësseef ak seen yitte ba mat sëkk wax dëgg wax dëgg yàlla ndax mën ngaa xam ñaata oto fi nekk fii ñu toll nii waaw oto yi nag bari na ndax euh, bu nu wootee du nekk sax di lim oto yi dañ naan képp koo am oto rek na nga ñëw ba nga xam ne kon kenn du des ñëppay ñëw kenn tey kenn mënut a jënd suuf fenn moo képp ku xëy rek ci Touba Kanam ngay xëy kon nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sakku ci sëriñ Abibu moom sëñ Fallu mu jottilul nu ñaan gi may ñaan loolu transporteur yi mu àggale nu ko sëriñ Muntaxa ndax xam ne ne bu nu ko ñaanalee danañ ko am ba sëriñ bi bu joxee tee ndigal nam ko bëggee nu defal na ko ci li kaw njertam te duñ ko laaj dara yoo wax ni alhamdulilahi rabil alamina ndax euh, liggéey Touba ca kanam bi comme niñ ko waxee woon ca avant première ba moom moom la ñuy doxee tey nii muy li nga xam ne mooy regroupement benni Touba ma Pambay mi nekk ci bopp bi di président bi Euh, yàlla dogal na xëy nañ ci tey wax dëgg yàlla itam liggéey bi ni muy déroulé macha allah. di wax ne nag mboolem koo xamante ni bii ne nii yaa ngi nekk ci dëkk bi di borom camion wala ngay chauffeur bu yor permis tey liggéey ci benn ñi ngi la ciy woo te bëgg ñu xam ne maanaam lii du benn yoon bii dañoo bëgg heure buñ ko soxlaa ci kattanu yàlla woo wooñu ñu ñëw teew defe ko niñ ko bëggee ndax loolu moo ñu fi baax. ndax euh, euh, regroupement bi ku ne xam ne alali Serigne Touba mbokk yi liggéey baa ngi noonu kon yitte rek la lii nag dañu koy def ngir gën a dalal seen xel xam ne kat jaayante yi mbokk yi lii rek la jur liggéey baa ngi nii mbokk yi yaatu na dana yàgg dana métti waaye nag li ci ëpp solo mooy dina baax yitte rek la loolu Serigne Mountakha ko wax. ndax man yitte moom yitte moom dama ko yëmal wala dara te yitte rek la yitte ma ko daal rek lu sotti rek gannaaw gannaaw gannaaw dogul sa borom yitte ko sottal yitte ji nag ma gis ci yéen moom wax dëgg yàlla yittee ko mënut a weesu wajalilaayi maskanitu baabaat misras mi abijaayi xayri ma nabaat